salaamaaleykum. le meilleur promoteur de l'année mooy wax. maa ngi leen nuyu di leen ziar di am mbégte bu baax ci daje bi ñu daje fii parce que tey ñi ñooy waa Ahlou Lamb. pour moi. parce que bu promoteur yi toogee manager yi toog entraîneur yi toog vraiment lutteur yëpp vraiment joxe seen kàddu ci li nga xamante ni mun nañ def ci de presse mu nekk benn kàddu kase nag kàddu bi mooy coow li bari na. mais ñun ñi nga xamante ni ñun ñooy wax ci li nga xamante ni mooy coow li benn kàddu nañ ci am ñu koy lancé madame la ministre ne ko ñun nga xamante ni ñun ñooy promoteurs yi liñ lay ñaan ak liñ lay sant mooy nga bàyyil ñu fi Bira Sène parce que nit la boo xamante ni dañu gis ni mi ngi liggéey ci làmb di ko doxal làmb nekk ci kanam mu am bilan boo xamante ni car allah ñëpp mention spéciale lañ ko defal. man dama jàpp ni nit buy liggéey ba am bilan bu baax tey ñu ne mandat bi jeex na li nga war a def mooy recourir ko tey ñi ngi wax ay un an man un an boobu sax laa d'accord man dama jàpp ni bilan dañ ko war a tegaat pour quatre man un pour xoolaat ñu naan ndax dañuy def làmb ay fédération wala xool beneen façon bu ñu ko doon man loolu laa d'accord li may wax dem la ministre ne ko na xoolaat bu baax li muy def ba bañ a déglu ñi nga xamante ne tey. ñi ngi jël seen i carte di manipuler li nga xamante ne mooy askan bi ñiy manipuler askan bi démb ñan ñoo taxaw di xeex système bii nga xamante ne tey ñoom ñoo fi nekk ñoom ñoo fi nekkoon dañ ko xeex tey ba ñuy dem pale daaw fii lañu fekk ña daan wax tey devant président mag sàll ñoo nekk di wax tey kon tey war nañoo mën a delloosiwaat suñu xel ci loolu ki nga xamante ne moo yor micro di wax du référence ci làmb parce que bu nekkoon référence ci làmb bëri ay turandoo ci làmb ji amul turandoo ci làmb ji kooku nu mu mën a nekkee référence mbër mi bëre yow wallaay li nga war a ñaan mooy ci ay biraseen nga daan ci nga fexee daan ci ay biraseen loolu lañuy ñaan ci yow kon doo leen ay référence tey ñu bëgg a jël làmb bëgg ñu bëgg ñu manipuler ci détail yoo xamante ni rafetul ñuy wax madame la ministre Père Bourkhane wax na lii du politique de. te bu ñu wowoon ci politique ñu simi suñu mbubu poli suñu mbubu promoteur taxaw fee politique ak ñoom te bu ñu politique ak ñoom daan leen lii du politique làmb la ñi fi nekk nii ñooy bailleurs yi di liggéey di jàppale li nga xamante ne maskan ñu frère Fall wax na ko léegi tey bu ñu teewoon suñu xaalis tey chômage yu bari ci biir réew mi te ñun ñi nga xamante ne ñooy joxe suñu alal suñu grand makan ngi nii barki démb na fi taxawal li nga xamante ne combat bu mag ñu koy jiw fi jaar di ko félicité tey bu ñu toogee fii tey ñun ñëpp ñu joxandoo benn kàddu mooy madame la ministre benn kàddu nañ lay ñaan mooy bàyyil ñu fi Bira Sène mu continuer li nga xamante ne mooy làmb ji làmb jëm ci kanam loolu laa amoon lu ko